jullit yi gannaaw ba nu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jëggal suñu diggante ak moom te dox ci suñuy diggante ak suñuy moroomi jaam ba li muy wax ne balaa kenn dem aljanna ëllëg daa am lum dindi ci moom mu soog a dem aljanna yal na nu yàlla tàggaleeg moom fii te boole boole ñu ca ñay dem aljanna ëllëg te suñu dem aljanna it bañ a ànd ak kersa ak njéppite tomb bi ñuy fàttalante tey day tënku ci tomb bopp day tënku ci menn mbir menn mbir moomu muy tënku nag dafa ànd ak yaari moroomam yoo xam ne daa mel ne dañuy bëgg a dem bàyyi ko te bu ñu bëggee dem bàyyi ko rek luñ ko gën a farlu ci ab dox it danañ taxaw nekk ko ba mu ñëw ñu soog a àgg fañ jëm bu ñu demee ci mbindum sëñ bu mag bi danañu ca fekk muy jàngale ci li tax suñu borom indi woon nu fi ci kaw suuf mooy nu nekk fi doon ay jaamam yu teg seen tànk ci ay ndigalam yàlla na nu gën a jàppandi mu wax ne yoon wii gën a jàppandal jaam bi ngir mu mën a àgg fa ndigal loole di àggale nit faw mu teg tànkam ci yett yii bokk yi léeg-léeg ñu dégg ku ñuy kuy wut kayit yi ko yóbbu bitim réew ñu di ko laaj lu ëpp fukki yëf te dana fexe ba am yépp waaye yii moom yatt rekk la yoo xam ne bu ci nit tegee tànkam te wàccu ko dana dem fuuf fu gën foofu muy dajaleel fukki yëf te bëgg faa dem moo tax sëñ bi bind ci benn téeréem bu ñuy wax tazawudu shubaan dafa mel ni ndaw ñee ko moom waaye daa mel ne lu baax ci ndaw du wàññi dara mag lu baax ci ndaw lu nekk du wàññi dara mag ndax mag moo gis bëgg doonaat gone la def mag mu sañoon doonaat gone doonaat ndaw waaye lu jafe lay doon nag sëñ bi dafa bind ne diine suñu borom ji nga xam ne ci la wax ne ku ko bëgg a jaamu mënoo caa ñàkk a jaar ñetti xaaj képp la yu neex a ràññee ba ca jëkk mooy imaan bi ma junj léegi mooy pas-pas bu dëgër diggante nit ki ak boroomam ñaareel ba mooy bi tudd islaam islaam mooy li li cër yi jëf xol fas cër yi di jëf loo xam ne diggante nit ki ak yàlla la ak diggante nit ki ak jaame yàlla yi waaye am na bu leen ñetteen bu ñuy wax al ihsaan ku jaar ci imaan ba nekk ci lislaam faw su bëggee am lam bëgg mooy mu dugg nag ci bi leen ñetteel boole leen ñoom ñett muy al ihsaan al ihsaan mooy lan ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale mooy jaam bi lim fas digganteem ak boroomam moo yàlla ñu xam ko mu di ko jëf ci ay cëram nit ñi mën ko ko mën ko caa àtte muy jëf ci cëram nit ñi mën ko caa àtte mooy waral bu nit ki faatoo ci feneen foo xam ne bokkut ak ñi ko gën a jege ci bokk lañ koy mën a taxawoo taxawaayu ab jullit mooy ñu xamoon ne ab jullit la waaye fas ci pas-pasam képp doyutoon du doy waaye faw kenn mas a gis wala aw nit gis ba tàyyi muy yaale si jàkk ja wala muy doge fa ñuy doge ak di naafila fa ñuy naafila loolu lañ ci mën a àtte waaye nag yooyu bu ci wenn amut mi ngi ko fas moom waaye faatu na mësee si ko gis ci jàkka ji mësee si ko gis ci jumaa ji mësee si ko gis fa ñuy doge muy dog ni ñoom wala muy naafilaandoo ni ñoom wala muy armalaandoo ni ñoom wala muy laaj waaw asaka moom ndax lii ma yor warat na ko caa génne wala wóoxu caa génne wala génne naa ko ba nag bëgg ku ma ko jox yooyu moom soo amut dana jafe ñu seedeel nit ki ne kii ab jullit la woon ba damay dund ndax mënut a wax fi mu nekk moo ko yàllaa xam te yàlla li muy wax ñu di ko dégg bañ koy laaj ci ab jataay lu xewoon yàlla di nettali yàlla mayu ko ñëpp subhanahu wa taala waaye bokk yi ba leen ñetteel bu am solo la mooy lam fas te di ko jëfe ci cëram ni ko yonent bi jàngalee mooy lu mu cay jëfe ci ay cëram it fekk fas na ko ci xolam fekk ku mu jox cër mi ngi toog tam ragal ko ragale kom xel jëf jëm koy jëf sellal gam cay sàmmonteel ci misaal mu gën a jege ku sëñ bi woowoon tey ba mu ñëw mu ne ko looy def mu ne fi mu ne nii de moom li may def bariwut xanaa loo ma digal rek mu ne ko kees gii laa bëgg nga layal ma ko dal di yónnee ab toogam toog di xool doonte sax léegi li gën a yaatu ci li xew mooy kër gi dañu koy karale ba mu àgg daanaka bu dee lay moom bu fekkee lañ ko daan jëlee moom day mel dañ koy bëgg a xañ nit ñi léegi lay ëtt bi bu fa toogee sàmmonteeg demi sàmmonteeg ki toog bëgg mu def ko bëgg ko def nam ko ko sante ba xolam sedd ca te pënd du jóg di ko fekk fa mu toog sàmmonte googee muy sàmmonte bu fa kooko toogee ba yàgg mu jóg dugg ci biir kii dund ihsaan dëgg du soppi nam doon def ba fa kooko toogee mu toog fa sant kooko toog fa ak mu bañ faa toog lay yamale kepp sëriñ bi nag misaal ne ko ci jëmmi nit ki ci boppam mu neex a xam lool juróom benn bayit dafa wax ne wantabihu fi anna diina allah أقسامه جيم بلا اشتباه أولها الإيمان والإسلام بعدهما الإحسان لا تنام فأول يصح بالتوحيد والثاني بالتفقه الحميد وصحة الثالث بالتصوف فالجمع واجب بلا توقف كأنما التوحيد في ذا الحال روح لدين الله ذي الجلال وجسمه الإسلام والإحسان لباسه الذي به يزدان daf ne pas-pas bi ma jëkk a tudd léegi te mooy li nit ki fas yàlla xam mu xam daanaka buñ dee wax diine mooy diine dëgg-dëgg moom bu diine da jëm mooy ruuga lu ëmmatut ak ruu aw turam day soppiku bu dee nit la bu ruuga dañee ku dee la tudd léegi su dee leneen lu dul nit te doon dem ak dikk bu ñu fekkee noo yeetut ñu ne daa medd kon pas-pas bu wér bu diine dee jëmm mooy ruuga yàlla na suñu ruu dund ba faw ruugoogu bu dee ruu kese la taxul ñuy wax jëmm ruu kese kese taxul ñuy wax waaye ruu gu ànd ak jëmm diine it jëmmam ji dox ñu di ko xàmmee moo tudd lislaam mooy jëfe ponk yi waaye nag bokk yi tey ku kilifa woowoon moo xam muy kilifa ak diine wala kilifa ak adduna ca nam toll la koy solole mbub ma muy sol dem ca nee na ixsaan mii nag bu fekkee lislaam day jëmm pas-pas di ruux mooy am colam ndax bokk yi am col ku bëgg ñu di limaale ci nit ñi mënoo ko ñàkk am na waa ju xereñ firndeel na ko ci ay jëf jamono bii sëñ Abdou Lahad Mbacké doon gane ji njóogu kebe ca Ndakaar moom doonut ku daa buun buun ku daa gëj a lekk yàpp waaye dugg fa ñuy ganale sëriñ bi bañ kumpa dong ak dañ kumpa moo ko fa bëggoon a dugal moo tax mu bëggoon faa dem yàlla dogal mu ñëw ba agsi ci buntu kër bi gis na ñi ne ci buntu bi dañuy tànn ñiy dugg ak bàyyi ñi ëpp ci ñi ñuy bàyyi ñu jàll nag mooy ñi solo ba jekk ne sugg mu xool xool xam ne waxante ak ña ca buntu ba du ko jàllale mu wañ ko dem Sandaga yooyu ñëw ba noppi ñu koy tudde wekki mu jël ca mbub mu baax ak mbaxana ak dàll yu yees li tax ma ne daawut buun nag loolu musal képp mënoon naa mënoon na sa jënd yàpp lekk ko ak la muy àndal waaye dañ ba dañ kumpa la ne ci biir ak bañ kumpa moo ko tax def noonu ba mu agsee ba ca ñene ci bunt ba dafa dëgmal ki ne ci bunt bi rek ba agsi ci moom jox ko loxo ne ko ñële ci sama gannaaw mag ñoo ma ànd na nga leen bàyyi ñu agsi mu ne ñan ak ñan la mu ne ñëw leen ñaar dikk mu ne kii ak kii la moom waxatuñu ay waxam ndax lan col même sol kepp moom lañ ko natte moo tax li ko sëriñ bi li sëriñ bi tuddee al ihsaan ne mooy mbubbum diine kooku def na ko film buñ gis gannaaw nag luy dox lu nekk rawatina doomu aadama boo ko séenee muy dox ruugaane sa biir moo tax muy dox muy ñëw nga xàmmee ko waaye nag kenn ku ci nekk mbub ma mu sol des na ko ca terale wala ñu maandu ca moom ab jullit moom du tëddal kenn waaye des na maandu ci moom nag bañ xam ne maandu nañ ci moom gars yi sol ca mu rafet di ko romb yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam ba ñu ko laajee luy sab liggéey yàllaa ko tontul yàlla daf ko tontul ne neel nit ñi sama liggéey du lu yees am na ñu ma fi jiitu woon ñoo xam ne maak ñoom ñoo bokk lenn lu ñu taxanu jóg ca la ñuy xëy di ca gont mooy lan jaame yàlla yépp teg yàlla fañ ko war a teg bu loola féeteeg wet ba kenn mënu leen a naxati ci googu fànn ñu fopp seen tànk nag teg ko fi mu leen ko teg loolu mooy ñu jaamu ko moo tax ba ñu ko laajee imaan moomu nga xam ne moom mooy cëslaay li mooy dàtt bi daf ne imaan du lenn lu dul al ixlaas mooy lu nit ci def rek mu seereel ko yàlla xam ne yàlla rek moo ko mat a seereel buñ fàttiwut fi ma tàmbalee woon léegi ci ki doon layalu ak keesam moo xam moom mu wóor ko ne yàlla moom du ku muy mën a tëj bët waaye ginnaaw digle na moom fam joxoñ rek falax ma nga toog di ma xool ak ma bañ maa xool ñoo yam ginnaaw nangu naa nag jaamam laa tam sañ na maa digal rek sañ na maa tere jeex na moo tax yàlla wax ci alquran santaane iman yaa ayuha alladina amanu aminu billahi ba ba mu ak am na fu mu santaane islaamu nit wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu waaye am na fu bari fu mu digle it ixsaan foo xam ne moo gën a bari lu mu ko wax waxaat ko ci ñaar yi ma jëkkoon a wax ndax yooyu moo gën a jaxasoo mooy fi nit ki gën a jaxasoo ak nit ñi wa axsinu inna allaha yuhibbul muxsinin wa axsin kama axsana allahu ilayk waaye nag lu waaye def boppam su nit ki amee pas-pas ba kenn mënu koo nax ba bëgg a wuutu yàlla ci moom di def santaane yi ba ñëpp xam kook moom waaye bu ihsaan jotee moom la muy def lépp nit ñi dong la bëgg ñu gis ko su ëllëgee nag na dem nit ñi fay ko waaye yàlla sëqut ak moom lu mu ko war a fay mi ngi wax ci beneen aaya naan bu ëllëgee ba ñëpp tiit ba nga xam ne koo wuti mu daw yawma yafirru almaru min axihi wa ummihi wa abihi wa saaxibatihi wa banihi foofa ñi nga xam ne ihsaan lañ doon dund fii ci kaw suuf ñoom ulaayika anha mubaaduun laa yasmacuuna xasiisaha rëg-rëg gi nit ñiy def di yaakaar kii mu ne sama yoo nekkul ci yow tudd na mbokk ko bokkal ndey ak baay wala ko bokkal baay wala ko bokkal ndey wala koo ne sama mbokk la rek tudd na baay tudd na doom tudd na it ay xarit ak ñoo xam ne daa ngeen bokk fu ngeen di liggéeyee di xëye ko wàcc mu ne kenn ku ne dafay am lu ko doy sëkk waaye nee na ñi doon dund fi ihsaan moom duñu yëg yow yaay coono yàlla noonu ci yàlla boole moo tax Muaaz ibn Jabal ci gaa yi ràññiku yi la bokkoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak gannaawam daa ñëw na yonent bi fekk mu di ko yónni barab am na ñu tudd yaman mu ne ko soo demee looy àtte waa dëkk ba mu ne yàlla nee na yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko soo soo gisut yàlla nee na mu ne man yonent bi nee na ndax wa ma yantiqu anil hawa mu ne ko soo tasee gut ak lu ci yonent bi wax nag mu ne ko su boobaa ma déglu li nga may dénk ma yóbbaale ko mu ne ko looy def rek jiital ci yéene ju rafet te seerale ko yàlla kepp su boobaa loo def mu doy yonent bi it waxoon na ne li tax ma ne pas-pas mën naa am nit ki di ko jëfe bañ xam ko ci moom waaye ihsaan réer meng ba bu ëllëgee buy ñëw dana doon jëmm ju ne ju ne jaww ci kaw nit ñi taxaw ñu gis ko xàmmee ko waaye du sol mbubu ba ku ko xool du moyu yàlla nu ci yàlla musal mooy xadis bi may bëgg a wax moo tax di jëf te yàlla tax te di ko seedeel yàlla te di ci di ci séentu fayog yàlla yàlla daal loolu rekk a am njariñ yonent bi moo ne bu ñu demee ci kanam tuuti ñii jaamu yàlla danañ bari lool waaye xàmmee leen ci ñett ñii ndax la ñuy bari bari mu ñëw génn ñett ñi dana gis kuy jaamu yàlla te yàlla rek tax kooku mooy waaja kooku a mat a roy kooku a mat a toppandoo la muy def ñu gis ko ak ñu bañ koo gis ñoo yem kepp nit ñi xam ko ak ñu bañ koo xam ñoom lay yemale kepp bëggut ku ko nettali bëggut sax ku koy nettali far ba mu cay gis boppam mel na mag mu ñu xamoon fii dañ ko fekk mu julli yor yor julli yor yor ci nawaafil yu baax yi la bokk sëñ bi bind na ko ci Masaalikul Jinaan waaye nag gàlluñ ko nit ki ne ko boo ko defut lii ak laa waaye la ca nekk lu bari la mu fekk muy julli yor yor ñaar ba juróom-ñett la tàmb la ñaar ba juróom-ñett nit ga yàgg ba mu sëlmalee nag ba mu bëtt ko ba jox ko loxo mu ne ko wàjji sëñ bi bàyyil yi ngay def te lekk te naan te xam ne yow aljanna dong nga jëm mënoo koo weesu danga fa fekk aw nit aw nit fekk la fa kooka mag la woon lool mu ngi fi bàyyi ko 1976 mu jóg ne kër kër daanu ci kaw lal bi ndax ñëw doole jógaat dem waaj dikk julli rakka yu yàgg yu gën a yàgg yam doon julli jégglu tuub li mu wax ko ci kaw li mu wax ko ci suuf ba ñëpp dégg mu bale ko ko jooy door a tontu ne ko foofu nga wax ku la ne fa laaj dem wéyaat di jooy lam ci gën a bañ mooy wan ko lim doon def ba mu gëm ne moom mii moo gën ñëpp loolu rek mooy bataaxal kon ñii jaamu yàlla te yàlla tax am nañ yal na yàlla gën a bari seeni kem waaye nee na am na kuréel bopp seenu jaamu yàlla dara ca ixlaas wala ixsaan nekku ca fee nit ñaa ngi koy wax ñu koy def waaye saa buñ noppee ñu bàyyi dem nañ sax bay bankal ñenn ñi lenn ay yenn yennat bëgg fu ñu daje rek tudd leen fa ne ma nga nee day tànkam yee day la ko tax a nooj mooy toogaayu yàgg rek ca der ba gëtëm yii de li ko tax a naqari ba muy takk kilomètre it weesu jàng alxuraan ak xasida rek du nelaw guddi du nelaw bëccëg bokk yi koo xam ne yow bokkoo moom ab néeg bokkoo moom kër looy xamal du nelaw guddi bi ñu fi waxee suñ fa lilu mbakke ne ko diw balaa sëpp ay tànkam jàng kaamilu alxuraan mu ne mi ngi def lu baax ñu ne ko waaw ndax loolu mën naa am alxuraan ni mbare mu ne alxuraan de ku wax ku ko wax lépp bar bu ne nga jaar ci saw làmmiñ sa bët tege ca da nga fa yàgg yam ca waaw bokk yi loolu gannaaw bokkuñu moom ab néeg bu ñu fanaan xam nga mën ngaa teel a xëy nit lool waaye daa fekk mu ubbi buntam waaye bala moo sëppi tànkam ubbeegul bunt bi wàcceeb kaamil kan moo koy wax nit ñi yàlla rekk ko mën a wax te yàlla li muy weer nit bariwut ku bari sutura la mbaadu kon kii wàcce kaamil bi moo koy wax naan wàcc bala maa sëpp sama tànk wàcceeb kaamil su boobaa ku tax mu di ko wax ak ku tax mu di ko def su boobaa na leen toppi ña ña tax mu doon ko wax waaye du yàlla yàlla nekkatu fa moo tax am na nee na kuréel bi dañuy jaamu yàlla ngir gis taw doonte am na fu suñ bi bind ci Masaalikul Jinaan di wax ne di def dara di ko fësal su ma ne ka koy def su ma ne mucc ci nangam ak nangam ak nangam daa daa jaadu ngir nit ñi roy ko ci waaye loolu lu jafe la am na sax ñu naan li tax ma di ko wax mooy ku koy def ren ba déwén nga di ko defal ren ba déwén te waxu ko bee ba nga bàyyi sab noonu la waaye bu lay defal ren ba déwén ngeen fekke ko ñaanal ko mu gën ko man moom itam mu sant ci yàlla ndax mënoon nañu di ko ko defal moom rek mu jeex waaye nee na am na beneen kuréel boo xam ne bi la ñetteel ñoom seenu jaamu yàlla li gone yow ay dóor kese la dañuy toog ci seenum néeg yor télévision bu rëy boo xam ne koñ ba koñ lay doon bi gën bi mujj génn bi gën a rëy ginnaaw du ñu seetaan lu ñu ko doy seen kër di jàpp ay chaîne di capp cappi buñ ne asalaamaaleykum nit a ngi ñëw ñu fay télé di gaaw jël téere bi wala jël course gi wala jël téere xasida bi boof lu fa télé bay def su dee loolu la kay bu ñu ko indee itam te jël nañu ko ñu ne ko demal wàcc ko ko ñu wàcc ko ñu dimbalee ko fuqaraaw ak masakin yi moo tax nee na am na ñoo xam ne ay dóor la dóori kese yàlla na yàlla musal ci ñetti kuréel yëpp yéen tamit nee na su ëllëgee yàlla nee na su ëllëgee day tànn al muxlisuuna minhum ne anañu su boobaa bokk yi jërut nit di tasallul bët di sa jéem a bokk kenn ku ci nekk am na code bu ko cay boole boo xam ne ku ko xamut doo ko xam suñ ne ay lan muxlisuun rek ku ne jot nga sa message da ngay daal di guutali foofu yàlla noonu ci yàlla boole mu ne ana ña ko des bu muxlisuun ay wéy moom ña ko des ñoo fa des muxlisuun yi mu ne dem leen yéen seen kër xam ngeen ko udxuluha bi salaamin aminin ña ca des nag xam nañ fañ jëm yaari kër rek a fa nekk yàlla nu yàlla musal ci kër ga ca des moo tax ñi nga xam ne dañ naan diw buy joxe loxoom nday jorom du ko moo koy joxe waaye càmmoñam du ko yëg lu am solo nga noonu moo tax bu ñu xoolee ci alxuraan dañ ci fekk bu ñu demee ci suratu yusuf ba ñuy fexeel sayidina yusuf alayhi salaam mu jaar ci soxna ba ko yàlla di layal daf ne duñ ko mënal dara de ndax innahu min ibadina al muxlisin ba muy werenteeg seytaane it ci waxin ba ko seytaan naan la uxwiyannahum ajmaina seytaane xam na ne moom ibadullahi almuxlisin mënuñ caa bokk ndax dañoo am seen password boo xam ne su ëllëgee bu ko yàlla wax iblis du ko xam moo tax mu ne la ughwiyannahum ajmaina illa ibadaka minhumul muxlasin yàlla nañu ci yàlla boole kon ñu maase xam ne boo déggee ñuy wax munaafiq naafiq ab jullit lay doon mooy koo xam ne day jëf li jullit yi jëf ba noppi di ca rax lu bokkut ak ixlaas wala ixsaan day tuddoo pas-pas di ko wax ni nit ñi di def al islam ni ko nit ñiy defe waaye bu ixsaan jotee nag mu rocc ku ndànk féetale ay jëfam feneen moo tax yàlla nee na almunafiquun su ëllëgee fa gën a suufe ci sawar la ñuy dëkk yàlla nu ci yàlla musal ñun ñëpp xam na ne ci àdduna kër yi gën a féex gën a am ngelaw lu baax lu antëg dara mooy kër yi gën a féete kaw mooy étage yi gën a kawe am na dëkk yoo xam ne sax lu kër gën a kawe ñu gën koo wàññi wàññil ko ñi nga xam ne mënuñu faa dem ndax néew doole waaye am na foofu fa gën a féete kaw mooy gën a bari luñ cay joxe ndax péex ma fa nekk waaye yàlla nañu yàlla musal ci fa gën a suufe ci sawara moom moo fay gën a metti ñu dund ko aljanna amee kanam ba nga xam ne lu bis bu set day gën a baax moroom ja waa ji day fàtte démb noonu la sawara mel ci nattu bis bu set waa ji danaan ngéej démb dellu si moo tax dund gu dal gu ànd ak xel mu dal pas-pas bu dëgër moo koy def ci nit ak jëfe pas-pas ba waaye te di ko def te yàlla dong tax bañ caa fay bañ caa fayu mooy fi muy waxe ne alladina amanu walam yalbasu imaanahum bi zulmin al zulm nee nañ mooy ashirk mooy safaanub al ixsaan ulaika lahum al amn wa hum muhtadun ñoo ne coow ca yoon wa yàlla na nu ko yàlla déggloo te boole ñu ca te musal ñu ci jax-jaxi seytaane yëngu yi nga xam ne moom la ñuy yëngu doole di ko def yenn yi jiba di ko def te jiba su jaaree fa mu war a jaar la cay nekk yëngub yaram a ko cay def yu ne gàññ la waaye yonent bi wax na ak ñun lu yàlla wax yàlla yonent bi neen yàlla neen nag te bu dul alxuraan lu kawe la moo féete kaw wax yonent bi daaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla nee na lu jëf bari bari lu kër kër ja bari bari lu pënd ba bari bari la ca yàlla jël tuuti la muy lam ca lañ ko ca moomale lañ ko ca moomale wut mu bàyyi koog ña ko moom bokk yi foofe ñu jëm nag lu fa yàlla moomut amu fa njariñ yàlla rek moo waaj ba jekk ngir fay moo waaj ba jekk it ngir fayantoo bi muy wax yonent bi mu xamal jaam ñi kan mooy yàlla ci nuñ ko mën a xamee ci seen dégg fañ toll woon buñ ca buñ ko buñ ko fàttewut bis bu set lum néew néew ab jullit dana ko wax juróomi yoon par waxtu waxaat ko rakk yëpp rakk yëpp la ñuy jàng fatiha bismillahi rahmaani rahim ñëpp na teg alhamdulilah rabbil alamin allah ñëwaat na ci alhamdulilah bismillah alhamdulilah rabbil alamin ñu ne xamuñu ki ngay wax mu ne arrahmaani rahim arrahmaan mooy kii taw fii di taw ci jullit di taw ci réew yi ay jullit di taw ci géej gi sax far ak montagne yi nga xam ne kenn du fa bay arrahim waaye bu ëllëgee nag day mbakkar feggul aw gaay yàlla ñu ci yàlla boole ñu ne ko xamaguñ ko mu ne malik yawmi diin wala malik yawmi diin yawmu diin ad diin nag fi muy tekkee lu bari ci alxuraan bari na waaye malik yawmi diin mooy bisu fayante ba yàlla rek moo waaj ba jekk te moom rek moo man di fay waaye moom waaj ba jekkit ngir fayantoo du fayantoo de waaye su xoolee lam ca moom lay jël moom la moom fi yonent bi wax tam ne bu ëllëgee yàlla day indi adduna da koy delloosi def ko film ku xoolaan film vidéo wala télévision da nga ci gis guerre yu jëkk ya te ñooña seen yax ya funux na bu yàgg ba say ba jeex ñu dun ñu indiwaat leen ñuy fetalaat ba ci at yu mujj yi képp léeg-léeg ñu wan la ci télévision bi ñu ñuy dox ak a wax te bu ñu laajoon fu seen bàmmeel nekk dootoo ko xam waaye dañ leen di indiwaat te loolu pexey nit la ci coobare suñu borom moo tax bu yonent bi ne bu ëllëgee yàlla di delloo si àdduna def ko mu mel na mu meloon kenn ku nekk di kër kër yi la mu doon kër këree yàlla danaan kër kër jee rañ xoolaleel ma ca la ma ca moom rek ngeen indil ma ko ñu indil ko lam ca moom maanaam li tax li nga xam ne yàlla rek a tax moom lañ koy seereel moom lañ ca bëggu payam mu ne lii moom li ci def soxlawuma ko bokk yi li li soxlawul këram nu mu koy def bale yóbbu ca fa ñuy def mbalit ma ab fab katu mbalit ñëw yóbbu ko fa ñuy def mbalit ma su fa lëjlee ba lëjle fa nu ñu koy def taal lakk mu jeex yàlla na nu ci yàlla musal yàlla na nu yàlla defal dégg ak topp te musal nu ci seytaane ak ay jax-jaxam ak i pakkam ndax am na ci foofu seytaane rek moo fa mën a dugal nit waaye day fekk mu topp bakkanam doonut ku bakkanam di topp waaye moom mooy topp bakkanam ba noppi bëgg lu neex lool lu neex mooy lu yomb rek mooy bëgg lu yomb li gone yi wax ci mbedd mi rek boo leen boolee mooy seytaane ki ñi muy liggéey loo mooy bakkan bànneex ak bëgg adduna bëgg adduna nag suñ mag bind na ci silkul jawaahir ne yonent bi nee na ñaawteef lu ko nit yéem yéem ak nu mën a toll bu fekkee luy dund di dox la bopp ba mooy bëgg adduna ku bëgg a mucc ci ñaawteef dëgg dëgg day fexe ba génn ci boppam bëgg adduna bëgg adduna nag bokkut ak sugg-sugg rek di soloo ko summi waaye nit dana sol ay sagar tilim lool kenn du ko mën a jege te fekk bëgg adduna la ci jublu mooy ñu di ko waxtaane kàpp naan gis ngeen ko ni mu mel de ni mu ko mane ni mu mën a soloo waaye foo ko fekk perkal dong lay sol li mën a jënd ci oto yu baax waaye foo ko fekk ab taxi lay jël du jënd oto sax far yàlla nañu yàlla musal ci bëgg àdduna fi may jeexale mooy tayalloowu nit ñi ci jaamu yàlla am na ñooñu dañu naan ne li ñu bëgg ci jaamu yàlla kon kenn mënu ko bay ba kuy def la man rek waaye bi may bëgg a wax moom ëpp naa bokk bu ñu daan jàngalee ihsaan bu njëkk ci jàngukaay yàgg ya daanañ ci joxe misaal dañoo wax ne daa am ko saa bu ñuy ubbi jàkk ji dañuy fekk mu taxaw ndax day yàkkamti waxtu jot moo ne diglewuñ day kuy dem ci jàkk di fa xaar waxtu dañoo bëgg nit di liggéey ba waxtu jot ma dem julli si waaye kooku daal moom ci xëram day jiitu ñuy ubbi si jàkk ji taxaw ci bunt bi buñ defee la ñuy def ci jàkk ja ba noppi dañuy toogaat lu yàgg nekk ko benn mu yor doll boo xam ne jaalibatul maraaxib moo ca nekk nuuru daarayni muxaddamatul xidma al kubra ak as sugra taysirul azir mafatihul bishri yet yooyu ma lim benn bu ci nekk doy na liggéey mu fas ko fa yéene jàng ba mu àgg waaye taxaw di ko xaar su na pejjaat kurus gi jóg taxawaat yor kurus gi di tocc tocc te dañuy sib kuy jullit yor dara ci loxoom waaye day yor kurus gi moom di tocc tocc benn bis nag gaa yi ne ko war nga ñoo ñaanal ndax nii nga takkook jàkka ji ak lii ngay jàng ci alxuraan lii ngay jàng ci xasida lu jeex nga jël leneen yaakaar nañ ne suñu digganteeg suñu borom nga ñaanal ni ndax yow mii ku jege yàlla nga war a doon fekk seytaanee ko dugg mu ne foofu mu ne day koor laa ci boole te yëgu leen ko wax bokk yi kooku taxawaayam yooyu salawaatu ala nabi yu bari yi ñaan yu bari yi adkaar yu bari yi zikr adkaar ku tax mu di ko def nit ñi dong la ko doon wan waaye seereelu ko yàlla moo tax yonent bi nee na ëllëg nit dana taxawal yàlla ne ko fay ma mu ne ko lu ma la fay lu ma lay ameel mu ne ko sama rakk yu bari ya sama njàngum alxuraan mu bari ma sama njàngum xasida mu bari ma kenn mësuma gis téeruma ab dol mu ne ku taxoon mu ne ko yow mu ne xaaral ma laaj ñi ma doon yónni ñu dama xoolal yónni gi muy yónnee tekkiwul nekk xam waaye atte daa am lu mu laaj kenn ku ne si ñu daan yónni ne ko wax dëgg yàlla daal xool nañ xool waaye daawuñu si gis yàlla nag yàlla ne ko demal si ñu la ko doon ñu taxaw nga di ko def ñu fay la amee la lu ma amee lu ma lu ma la fay moo tax sëñ bu mag bi ne bu kenn naagu ci pexey seytaane li feeg faatu wut ak dund ma weeru ko reyam li feeg doog jotagul rek bul naagu ne du ma juubu te léeg-léeg sax nit ki faatu ba noppi te seytaane ci ay jëfam ak i waxam waaye seytaane fexelaat ko mooy danaan kii bu kenn ñaanal jëru ko ndax li doon wut am na ko ba noppi su boobaa nag am na lu loo am na loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amagu ko ba tey yonent bi ku ko tudd sallallahu alayhi wa sallam la cay teg te ak ñaan la ginnaaw weesu nañu ko ñaan moom cat dugg na ko yaghfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin